cour suprême dàqee dogalu juge Sabassi Faye tribunal hors classe bu Dakar joxaat na dëgg Ousmane Sonko loolu nekk luy gën a jëmal démocratie Sénégal bu nu dégloo Mamadou Mbodj. sant yàlla am ci mbégte gis ne Sénégal am na ay juge yu mel ni saba si Faye yu mel ni Thior yoo xam ne gëm nañ yàlla te dañuy wax droit ni nga xam ne moom la ko peuple bi di xaare parce que boo dégloo euh, li nga xam ne moom la avocat yi wax. vraiment di nga xam ne juge bi dina jafe lool mu wax leneen lu loolu. moom mi bokk F24 di woo njiit yi ngir ñu bàyyi képp ku bëgg samp ndënd ci élection yi ñu jëm mu mën a jongante. ñiy fal nag euh, ci loxoy nit ñi la ak ci loxoy yàlla ñooñu bu fekkee sénégalais jàpp nañ ne kii mooy falu muy muy sant Diop mu sant njaay mu sant Sonko wa keneen ñu ñoom ñooy fal mais nañu bàyyi ñëpp ñu bokk loolu mooy élection inclusive nañ def élection transparente ñun ci la ñu taxaw. élection yoo xam ne dafay leer nañ euh, vraiment euh, Sénégal am jàmm. moo ne avocat yu nguur gi pare nañ pour dugal recours Mamadou Mbodj di ñaawlu loolu bu baax mu xam le ni pexe mënatul a jëriñ fii ñu toll. def nañ lu ne pour Ousmane Sonko du bokk depuis deux mille vingt et ñu ngi koy faagagal di ko sonal wax dëgg yàlla euh, loxo yàlla mu ngi ci gëm naa ko nañu wax ñoom itam nañ gëm yàlla ne wax dëgg yàlla li ñu def bari na ëpp na nañu arrêté bàyyi Ousmane Sonko bu bokk parce que peuple booy décider pour mooy ni kan mooy kan moo war a jël mais c'est pas ñoom ñoo war a taxaw ne Ousmane Sonko du bokk par force